mbokk yi dal leen nag jàmm ci biir limametti point com comme à chaque fois nag ñu ñëw ak ci li nga xam ni moo leen di soxal ah, jamono ji xam ngeen ni dañoo nekk ci waajtaayu li nga xam moom mooy wax li nga xam ni moom mooy tendance ñu daal di leen toppal li nga xam ni moom mooy tendance korité ñëw seet si ñi nga xam ne ñoom ñooy waa complexe Bella Aïcha Bella Aïcha nag dañuy def li nga xam ni moom mooy maquillage di defaale li nga xam ni moom mooy couture ah, salon de couture bi nag mi ngi tudd li nga xam ni moom mooy ciseau d'or gis ngeen nag lu rafet li nga xam ni def nañ ko sama kanam di maquillage tay ñu ñëw ak yeen nak ñuy waxat ñuy waxtaan ak yeen ci li nga xamni mom moy tendance maquillage d'abord daal di ñëw ci li nga xamni mom mo xew ci walum ñëw ci qualité bi salaamaaleykum ma ngi tudd ndey Fatou Niane ma ngi leen nuyu ñepp nek ci tur 60 di gérante complexe Bella Aïcha ak Ciseaux d'Or di leen sant di leen gërëm daal ñëwoon aussi si mode si tendance Korité bi présenté leen sama modèle yu rafet yi aussi. tendance maquillage yi moom maquillage moom amul tendance ça dépend si yow li nga bëgg ak aussi lu la jàpp ak loo senti def sa kanam mais bul ne tendance bi kese moo am ci maquillage moom lay def wala tendance bi moo xew moom lay def wala maquillage bi wala cils bi moo xew moom lay def non non da ngay xool lu ada lu ànd ak sa teint ak aussi lu ànd ak sa kanam daal genre loola jàpp. waaw moom moom kii moom amul tendance da ngay xool la jàpp rek ak lu mën a adapté ak sa ak sa kanam. waa dëgg la du ñàkk des fois xam nga rek client yu compliqué yu ba mel ni sama maam yaa ma gën a xam mais bon da ngay naxtaan ak ñoom rek su dee aussi liñ liñ bëgg loolu lañ bëgg nga fekk si leen si su dee aussi nangu nañ la fekk si yow aussi ñu fekk si la moo gën. mais tamit d'habitude boo ñëwee ba wóolu sa bopp jox ko benn maquilleuse dangay ngay bàyyi moom mu maquiller la moom dina xool la jàpp dina la ko maquiller mais soo ñëwee rek ne ko li la bëgg te loolu japp la moy waral des fois nga defaral nit dara mu ne ma defaral neexuma wala genre yu te pourtant du yow ya ñëw ne ko defaral ma genre maquillage bi la bëgg wala genre bi la bëgg nga def ko paré té aussi dula la neex soo ko ak sa kanam nga wolu ko mom dina la lu rafet ak aussi lu japp lu and ak sa temps euh, waaw sama clientèle moko like parce que man ñëpp damay défar ay greffage ay col ay musóor yëpp ça dépend client bu ñëw rek li nga bëgg dama la ci fekk si soo bëggee greffage ma defal la sa greffage ba monté la ko pixel la ko ñu def si yëpp li ci war am naa man genre yooyu xëruma ci sax mais am naa coiffeuse boo xamante ne mooy gérer genre yooyu bu dee musóor yi ak col yi man maa koy gérer man maay mu def musóor maay def col yi et pour tendance korité bi moom comme ñu ngi waaye dugg ci tàngaay bi dama def ay euh, voile ensemble petit marinière ak euh, pagne travail il def aussi ay soie soie yu léger te aussi neex ci tàngaay def ko ay petit bubu lu la neex aussi da nga koy booleel def naa aussi pour korité bi ay grand bubu bazin riche grand bubu jesner am na yére góor aussi am na lépp am na daal genre ku nekk daal lu mu bëgg rek bu ñëwee fii moom dina ko fekk incha allah adresse bi moom ñu ngi Parcelles Assainies unité 18 Parcelles Assainies lañ nekk unité 18 numéro téléphone bi 77 632 88 21 ak 78 425 70 08 ñaari numéro yëpp ko ci contacté di nga jot waa kër gi.